alaikum wa rahmatullah maa ngi tudd Daoud Sagna di secrétaire général enseignant socialiste su Thiès bii nii bokk jeunesse socialiste su Thiès Ouest coordination section Randoulène nekk membre IRAS mi initiative à la réflexion et l'action socialiste maa ngi leen di nuyu membre presse bi yéen ñi teew di leen remercier ci teew bii ngeen teew wane neen ngeen bàyyi ngeen nopp parti bii di suñu parti di parti socialiste tey nag dañu woote woon ndaje pour waxtaan ak askan bi waxtaan ak militant à la base bi waxtaan ak ñëpp duñu bëggoon pour d'abord wax leen ci contexte ban lan waxee ci bu yàggul suñu secrétariat exécutif national dafa daje. bu ñu dajee ba génn ñu ne jox neen carte blanche kii di suñu secretaire général intérimaire Aminata Mbengue Ndiaye pour mu dem ci Macky sàll waxtaan ak moom pour kii xam ne Macky sàll moom la tabb comme candidat ñun ñi daal di topp ci ginnaaw mu doon suñuy candidat ma askan bi woo leen ci wax leen na leen parti socialiste ca na muy doxee secrétariat exécutif national amul sañ-sañu jël décision bu doy noonu te bureau politique nekk fi euh, euh, le le le le comité central tamit nekk fi mi ñaari jumtukaay ñaari instance yi xam ne ñoom kese ñoo am sañ-sañ décider ci waxtaan ci diisoo ne parti socialiste politique bii lay mëne secrétariat exécutif national dadi. mu ne loolu bureau politique bi décidé ak comité central ci leeral dañu bëgg a wax ne amuñu sañ-sañ bi secrétariat exécutif national mënul joxe loolu loolu nag ñi ngi ci ñaax askan bi ne leen ànduñu ci ba mu leer ñu ñëwaat tamit ci lii xam ne mooy communication parti bi parce que lii yépp problème de communication la kii xam ne moom mooy camarade Abdoulaye Wilane di suñu porte parole parti xam ne sax ma ko koy yëgal ñii xam ne ñoom ñooy militant à la base yi nee na nekkatul porte parole mais porte parole la bi parti ñu ngi ñaawlu la fait que ne saa bu ñu amee réunion la soqeeku ci réunion bi bu taxawee di wax ci presse bi du wax carrément li soqeeku ci presse ci ci réunion bi ñu ngi ñaawlu tamit. attitude bi mu am ci mu presse bi xamne ne suy wax ak ñom day mel ne def leen jëppi loolu fay nduruwul xar kanamu parti socialiste nu ñu mës xamé parti socialiste moy beaucoup de tenue et de retenue ñu ngi koy xamal ne militant à la base ñu ngi koy invité à plus de tenue et de retenue ci doxalinam ak communication bu jëm ci parti bi militant à la base nak amna lu leen yëm parce que kii di suñu camarade Abdoulaye Wilane porte pas rôle suñu parti togon na fi diir mu wo presse bi yeb ne gelé naa samay activité Benno Bokk yakar keroog président Macky Sall woo élu locaux yi palais mu dem fa bi mu démé li ñu jaaxal dafa né ak aqla taalexa li nekk si bir xolam moy ko ñun Macky Sall leen tabb comme suñu candidat mom leen bëgg ñu yëgal camarade Abdoulaye Wilane alhamdulillah et heureusement ba ba mu waxee ba pare dafa ne ñun à APR parce que ñun waa parti socialiste militant à la base gëmuñu loolu xalaatuñu ko te décision boobu bu ñu demoon ba nga koy jël dañ koy jaarale ci jundikaay yii di bureau politique ak comité central donc engagé wul militant à la base yi gannaaw loolu am na leneen loo xam ne tamit attiré na sama attention parce que ba ñu taxawalee point de presse gis neen communiqué bu génn di wax ne ERAS bokkul ci structure parti socialiste reconnaître ñu ko signé ki signé communiqué boobu di suñu secretaire général intérimaire madame Aminata Mbengue Ndiaye ñu koy fàttali ne ko wallaay xam nañ ne maam Aminta que ne wallaay problème mu yëngatu mun na ko am mais mosuñoo xam ne am na problème mu naax moo tax dinañ ñëw tey comme ay sëtam pour fàttalil ko ne ko maam Aminta xanaa du yow yaa woo woon kii di suñu coordonnateur Eras Sarkozy Abdoulaye Boubacar Balde juróomi yoon diisoog moom waxtaan xanaa du yow yow yaa ci recommandation wu sage parti yow yaa yéen a yéen a recevoir membre Eras yi la ñu waxtaan ak lañu ñu tënk foofu moom moon moom lañ jël yóbbu ko ci biir bureau politique est que jar na tamit maam Aminta ma fàttali la ne que ne séminaire bii parti socialiste mujjee def IRAS moo def pression ba ñu mun koo teg donc li ñu ciy tontu bëriwul comme nee na kenn connaître ñu te reconnaître ñu alhamdulilah ñu ngi yëgal askan bi ne 138 coordination yi nekk Sénégal nit ñu ubbil seen buntu. danañ dem ñu connaître ñu reconnaître ñu xam ne parti socialiste am na ñu jóg ñu am neneen lu ñu xalaatee ci doxalin bi te tënk ko lu ñuy def ak lu ñuy wax tënkuñu ko fenn lu dul ci texte parti bi loolu bëggoon leen pour askanu Sénégal xam ko camarade parti xam ko ñu koy tontu nag ci communiqué boobu ne ko benn réponse rek lañ ci am ci communiqué boobu moy tay mom mi xam moy secrétaire général intérimaire parti bi intérim bi xam ne assuré na ko dem na ba passé mandat donc mun nañ né bu la illégitimité di am mom secrétaire général intérimaire mo gëna illégitime ñëpp li ci top moy li xam ne attiré na suñu attention ci génn ñi ñenn ñi génn moy suñu camarade parti bobu député xam saay buy wax day yuuxu di wax te kenn du xam lu muy wax moy Ali Mané ñu ngi koy ñaan na ko na xoolaat bu baax lu muy wax parce que nit ku ñu ne député la war a def assemblée nationale di voter ay loi war na mun ràññee lan mooy pouvoir ak devoir ñu ngi koy yëgal ne ci texte suñuy parti buñ ci tënkoo ak nu mu munti demee secrétariat exécutif national mënul jël ay décision unilatérale dem moom kese pour tënk dara lépp lu mu mun di tënk baa mu jël ci suufu directrice bureau politique ak comité central la war a jaar leneen lu ñu koy fàttali mooy que bu ñu demee ci jaaykatu livre yi am na lii li ñuy jaay loo xam ne mu ngi tudd dictionnaire Robert ñu ngi koy ñaan mu dem jënd ji ko comme moom gannaaw mënul xàmmee la ñuy wax statuer décidé nee na sunu synonyme leen ñoo bokk dineen ko ko bu ko amul lu mu ko jëndee daneen ko ko jëndal bu soobee yàlla yóbbante ko ko ñu xam ne militant à la base du parti socialiste yi ñoom ñoo ko yóbbante parce que nit koo xam ne instance bu kawee bu doy na secrétariat exécutif national boo ci nekkee boo doonee député am na yenn loo xam ne war nga ko mun wëttu di ko def ci gàttal pour ñu ñëw ci lii xam ne moom moo gën a essentiel ndaje tay bi dafa bëgg wax ak militant à la base di leen yëgal ne ñun ñii xam ne ñoo fi euh, ñoo nekk ci biir IRAS initiative de réflexion et d'action sociale am na leneen loo xam ne wan nañ ko beneen façon de penser boo xam ne am nañ ko bii xam ne moom moom méngale ak suñu militant à la base yi lii xam ne comprendre nañ ko ñu ngi leen ci tàllal loxo pour ñu fekk si ñoom

bu soobee yàlla IRAS dana ko dox ci bëccëgu kàmm dox ngir dajalewaat famille socialiste ak ñëpp képp kuy socialiste de la gauche danañ ko dox danañ ko wax danañ ko def ci kanamu ñëpp te buñ koy def duñ ko def guddi midi lañ koy def ñëpp di gis ñu IRAS dana def kàttanam ngir ba ñu tenir congrès extraordinaire ngir ñu ut tabaat secrétaire général bu bees boo xam ne dana mun doxalaat parti bi gën ko suqali mun beesalaat instance su parti yi mun rajeunir tamit instance parti loolu tey leen fi indi woon di leen ko taataan di nag beral tey appel bi ñuy def ñii wax les socialistes de la diaspora ñu ngi leen di invité pour tàllal leen loxo pour ñun ñëpp ñu taxaw ñu taxaw ñu jàpp ci ñu ànd bu soobee yàlla parti socialiste bii ñu gisoon mu tëdd mel na luy nelaw daneen fexe ba yee ko ñu rajeunir ko ñu ñëpp ñu ànd si benn journaliste dootul demati gis paa bu 60 mu toog mu ne ko ñu ñooy jeune parti bi daal di jël ay micro di wax lu ko neex bu soobee yàlla dinañ jël pleinement notre avenir te dinañ ci def la ca war léegi nag fi may jeexale mooy di leen sant di leen gërëm ci ñëw bii nii ngeen ñëw pour taataan xibaar bii xam ne bëggoon na leen ko jox ñu ngi nuy ñëpp di woowaat ñëpp di leen yëgal ne lenn rek mooy suñu yitte léegi mooy dundal taaral pees te ci la ñuy dox wasalaamaaleykum wa rahmatullah